Gina bi mu leen ya, di nuyu sëñ Mbaye Dieng mi si bunt bi di nuyu waa kër gi yëpp di leen ziar Moustapha euh, sëñ tin tin euh, information Modou tin information am na solo macha allah di nuyu am sëñ Cheikh Boy ak sëñ Babacar Lo Cheikh Tidiane Ndiaye màggat euh, taalibi sëñ Saliou di nuyu mbokk yëpp tabarakallah donc fi ñuy commencé information yi mooy euh, euh, chef de diplomatie bu Union européenne sortant Joseph Borrell moom dafa suggéré que ni euh, ordre mondial actuellement ni dañ ko suspendre ndax li ko waral mooy que ni guerre bi guerre bi nga xamante ni déclenché wu na biir Israël aussi tamit bokk nee aussi tamit ñaawteef yi nga xamante ni Israël mi ngi koy def. Euh, si Gaza di rey euh, journaliste yi nga xamante ni seen yoon nekku si aussi tamit euh, wax na si sanction commerciale bi nga xamante ni war nañ ko war nañ ko teg Israël ba léegi Joseph Borrell mi ngi avati occidentaux yi ni violence yi nga xamante ni ñoo ngi am actuellement nii mën na law ba si biir Europe entre Euh, mën na Arabi entre euh, arabi ak jivi man na nek lo xamanteni man na nek lu yaatu ci biir euh, Europe comme exemple rek bi am moy que bi Hollande Amsterdam ak bi amone dembe France malgré que force l'ordre yi nekk France bari woon nañ trop mais teewul euh, biir stade bi amoon ay jaxasoo moom nag mi ngi artu dirigeant européen yi ak waa Israël ñu arrêté seen guerre bi nga xamante ni moom la def ba bokk na si information ci groupe SCM info international moom ministre Ukraine bi yor wàllu défense ñu naan Rustom Omorov Merov moom dafa wax ni information bi nga xamante ñoo ko doon euh, di diviser si Europe di wax ni Ukraine dafa pare pour euh, échanger territoire u Ukraine ak euh, ak xaalis bi nga xamante war na ko jox pour mu mën a maintenir guerre maanaam daal dafa jaay suufam pour ñu gérer que sécurité am neen information boobu génnoon démb du nekkul lu am nee du dëgg nee neen information boobu amul moom ministre de la défense bu bu Ukraine moo wax lool aussi tamit nee na ne partenariat entre euh, Europe euh, bare na si ñoo xamante ni dañuy propagande euh, dañuy propagande di wax n'importe quoi aussi tamit conférence de presse bi nga xamanteni ni moom doon na ko def moom ministre de la défense bu ñoom mook euh, ministre euh, bi yor défense bu Norvège ñoo ko doon def si la waxaale lool aussi tamit euh, moom Umarov wax na ni Ukraine du masa bàyyi objectif yi nga xamante ni moom la bëgg ànd frontière frontière am ak Russie depuis 1991

wuute na ak euh, liñ def euh, si yeneen ville yi daal ama Crimée moom li tax Russie gën ko soxla mooy que ni mer Noire bi te yooyu yëpp euh, affaire commerce yooyu moom moo ko waral am na sax benn expert britannique bu waxoon loolu ne ñu nangu yeneen ke mooy gën a yomb ko nangu Crimée Crimée moom lu impossible la

ba tey na si information yi neenu Norvège actuellement mi ngi commencé financer euh, production arme équipement yu Ukraine nee na actuellement nii euh, neen lii dana waral dana dana waral euh, production ak yóbbu bi nga xamante ni ñoo ñoo ngi koy ñoo yóbbu munitions yi biir Ukraine mu nekk loo xam lu gaaw lay doon neen l'essentiel daal mooy force armée ukrainienne yi Euh, euh, ñu mën a yore yeneen modelu u avantage yoo xamante euh, day jóge ci entreprise ukrainien yi yu si technologie li jëm si wàllu défense ak yeneen détail moom bi wax suluñ wax na ni aussi tamit moom ministre bi yor wàllu défense Rustem Umerov nee na tamit mi ngi jaajëfal waa Danemark ñoom na ñoom tamit am nañ intention pour financer direction euh, pour financer directement production arme ukrainienne bi euh, Danemark Danemark aussi tamit euh, pare na pour jàppale leen ci production munition yu nekk biir biir Ukraine maanaam daal finance leen ci wàllu xaalis wala wala lu jëm si ay lépp loo xamante ni munition laaj na pour defar ko daal yooyu yëpp yooyu yëpp ne nu Danemark ak Norvège pare nañ pour jàppale leen ci ba tey bokk na si information yi eh, États-Unis ginnaaw bi mu tegee ay sanctions yu bëri eh, Russie Russie moom tamit commencé na eh, di teg sanction États-Unis nee na Russie actuellement nii tontu na si sanction yaa xamante ni waa sanction yu yi nga xamante ni moom la ko États-Unis teg ndaxte actuellement ni nee na Russie dafa décider pour wàññi exportation uranium. Arisi, euh, en eh, Russie jëm bir biir États-Unis ne iranium, Arisi, Russie daan dem États-Unis Russie daf ko commencé arrêté si ludul euh, mu nekk maanaam si lu licence si kaw daal ñu jox leen licence eh, bu spécial boo xamante ni ñoom balaa balaa ñuy envoyé uranium bi eh, dinañ si waa Russie dinañ xool ba Euh, gis ni war nañ ko mën a envoyé wala waroon ko mën a envoyé mais loolu nag euh, waa Russie dañ ko def pour punir États-Unis si uranium ndaxte ku nekk xam nañ États-Unis uranium bu bëri biir Russie la koy jëlee ba si biir guerre bi nii bien bien vrai que teg na ay sanctions et tout dafa utiliser uranium bu russi bi ba léegi. ba tey bokk na si information euh, Donald Trump. ñu ngi commencé di yóbbu ay groupe de presse justice ñu leen commencé yóbbu si yoon ay groupe de presse yu mel na T News ak ak New York Times ak Penkin ak Random House ak euh, CBS News ak euh, Washington Post ak yeneen euh, groupe de presse yoo xamante ni Donald Trump da leen planté. pour euh, plusieurs articles yoo xamante ni doonoon ko bind euh, di wax si Donald Trump lu ñaaw ak euh, loo xamante ni daal daf koy yàq si wàllu politique ak di gàkkal deram loo xamante ni taxewul laalewul maanaam daal diffamation actuellement ni ginnaaw bi mu ginnaaw bi mu nekkee président actuellement dafa porte plainte groupe de presse presse yooyu ba tey bokk na si information yi euh, Viktor Orban nee na mi ngi woo waa union waa Europe nu dindi sanction yaa xamante teg nañ ko Russie premier ministre bu Hongrie moom vitor Orban nee na euh, nouvelle fois mi ngi critiqué sanction yaa xamante union européenne euh, teg nañ ko Russie aussi leeral na ni nee na loolu erreur stratégique la ndaxte le fait que ñu ñu de teg sanction Russie moo waral seen prix yi di euh, di yokk surtout énergie bi nena li mu yokk yëpp euh, li nu sanctionné Russie moom moo ko waral daal euh, sanction yi nga xamante ni teg nañ ko Russie daal moom moo néewal doole Europe ba tax na li war daal mooy que ni ñu dindi sanction yi nga xamante ni teg nañ ko. Russie ba tey bokk na si information yi neenu euh, président français Emmanuel Macron dafa invité euh, pape dafa invité pape bi pour mu ñëw teew ci inauguration euh, cathédrale bi nekk Paris cathédrale notre Notre-Dame dañ ko war dafa woon pape pour mu teew ci mais pape bi dafa wax publiquement ma ni moom demul ndaxte li ko waral li ko waral mooy que ni jëf ju ñaaw ji nga xamante ni doon leneen ko ñaaw ci jeux olympiques yi bi muy ubbi maanaam daal euh, dafa am benn photo boo xamante ni euh, yonente yàlla jamono ma si euh, kat en tout cas daal si mbiru catholique la daal گیا نو ن گٹ گر جیگی لس بھی فٹابی کل ہم فٹابی مینگو کاری چاہیں مار دال کاری چاہیں لنکا ہمیں گر جیگنی ڈال لنکن بھائی جمعے کریںل برے میں لفید کے پابی بنو گرے در نوتو پاری مم مریا زہرف نیا دبش کونتان دفشی کو لفیت کا پابی رفوزے تھی گرے بو ndaxte ñoom waa Russie ñaawlu woon nañ ko bu baax a baax geste boobu nga xamante ni defoon nañ ko bu tey bokk na si information nee na militaire ukrainien yi euh, combattant yi nekk Russie euh, région bu kër si ñoom jot nañu seen euh, récompense financière supplémentaire soldats ukrainien yi jot nañ ko actuellement ni ñoo ngi ano ñoo ngi ko jot le 15 novembre maanaam bis ni ko tey présentant bu gouvernement bu Ukraine euh, bu par euh, parlement bi moom moo ko xamle naan actuellement nii daal euh, déjà mise à jour bi jàll na ba tax maanaam li bëgg mooy que ni actuellement nii combat yi nekk biir Kursk ñoom militaire Ukraine ya fa nekk ñu maintenir pour Russie bañ nanguwaat région du Kursk

aussi tamit euh, nee na euh, société bi tamit société Ukraine bi ñoom dañ si am important mais nekkul ni maam dañuy jékki-jékki rek ñëw ni wa guerre bi dafa war a jeex na jeex jelensiki moom nee na guerre bi jeexagul euh, te amul kenn koo xamante mën na la wax ni bis tel la guerre bi war a jeex. ba tey bokk na si information sous secretaire américain de la défence moom euh, ak euh, ministère bi yor wàllu finance bu moom William Laplante bu bee mooy euh, dirigeant ñi nga xamante ni Donald Trump ñoom la teg bees moom dafa déclaré ni outil mouvement rebelle yu ansaar la ñoom actuellement nii dañu disposer ak ay armes yu avancées. neen xam nañ ni euh, xam nañ baax que ni missile yi nga xamante ni euh, missile yu doy waar yi euh, yi outil yor dafay wane ne rek outil yi nekkatu ni ñu ndaw maanaam daal outil yi dafa li mu bëgg a wax mooy que outil yi léegi ñoom dañu am doole surtout missil yi ñu yor ak seen seen munitions yi nu yor. ak sen armée bi actuellement l'aiguille dafa am doole si gâteau d'Allemagne, euh, Williams euh, euh, Laplante plante wax outils outils outils du ben outils dañu côté missile ci côté yu man yu missile missile anti navire kii dañ si avancé léegi outil yi dañ si avancé ba tey bokk na si information yi neenu Lapsor ak euh, Vladimir Poutine euh, tey jot na tey waxtaan nañ téléphone nee na am na ay source yu yu jege président euh, premier ministre bu Allemagne bi dëggal na wax lu mel noon aussi tamit neenu neenu ay neenu Kremlin aussi tamit dëggal nañ loolu neen si biir waxtaan boobu jot nañ waxtaan su bëri entre diggante Russie ak Ukraine seen uh, digënté problème bi ak digënté uh, diggante uh, Russie ak Allemagne sen ñom ñaar gëj na neexoo depuis que ñu dugg ci guerre bi aussi tamit aussi tim Vladimir Poutine bokku na ci lim ko wax moy que ñun wa Poutine ñun ñun ñun wa Russie mas ñu dakk waxtaan aussi tamit ci waxtaan bobu Lavrov aussi tamit euh, si waxtaan boobu daal euh, si gàttal nee na neen Poutine ak euh, Lapsor jot nañ waxtaan si mbir yu bëri.